ma bi lu dul doomu Médina dëkk Médina yaroo Médina jàngee école bu ñuy wax Charles Baudelaire donc tey doomu Médina mooy wax ak yéen. si le savoir est une arme alors soyons armés car sans lui nous sommes désarmés donc dañoo war a miser ci éducation. fan nga liggéey yéen boole doomu doole dugg leen ba seen ay ci baawaan yal na leen yàlla teral yal na leen yàlla sagal waaye na leen ànd liggéeyal Sénégal waa Médina kaay leen nu jàppalante ku seeni doom macha allah te ku ne boo xëyee fajar yaa ngi xëy di gàddu sa doom yaa ngi dem école yaa ngi lijjanti kon ki la dimbali ci sa doom kon kàll macha allah kooku jàppale ko rek moo nu war. Madame le sous-préfet cette activité-là est une activité purement citoyenne ndax tey jii nag yaakaar naa suñu bëggoon politique xam nañ ni koy defee xam nañ fan lañ koy defee te dinañ ko def ba mu mat sëkk te du manqué. ndax li may wax politique jox nit alal jox nit. ay teranga taxul nga am firne que ni ki ni yow la andal ndax ni and ak yow sax mën nañ dugg ci bureau de vote ba tay keneen ndax yow do ko xam donc li tax ngay def mooy da nga jàpp ni am na teranga bu la yàlla jox ci teranga boobu nga jël ci li nga xam ni mën nga ko bokk ak askan wi activité bi xar kanam yi ñu dajale monsieur le ministre dafa am lu am solo lu mu wax Medina et quand il connecte la question de l'école à la question de la Médina et si nous avions bien compris si le système a bien compris le système de la Médina